nangu woon yàlla yi ba tey ci biir journal bi mu ñuy xibaar naan ñu Maodo ba léegi ñoo ngi sukkandiku si am njàngaleem yéene kaay gi di la sax xëy dañu xibaar naan ñu njiitu di président Macky Sall tey jii dina dem ca diwaanu Tivaouane pose première pierre ndax dafa am benn hôpital boo xam ne moom la ñu fa bëgg a tabax hôpital boobee sax bi ñu ko xayma lu toll ci quarante-six milliards la koy defaree yéene ne mooy ay erreur ak mënatuñ ko bàyyi mu jàll Macky Sall war naa surveiller bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy entouragement te nag Macky war na koo leer ne maanaam mandat bi yàlla sunu borom rek moo dul jeex Macky war naa xam ne mandat bi dina jeex maanaam dina jeex mu daal di dem ci nii wala ci na par A ou par B Serigne Habib Sy da baax mooy wax nee na nag Macky Sall moo wax ci kanamu askanu Sénégal gi yëpp ne mandaam 2024 lay yem te nag Macky Sall dafa war a xam ne Sénégal la xew ci yeneen réew bëgg ñu mu xew ci réewum Sénégal te man Serigne Habib Sy da baax mënatuma koo seetaan mënatuma cee noppi ci nii nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi moom sëriñ bi daan nay interpellé ki nga xam ne mooy procureur ak ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraangi réew mi nee ministre de l'intérieur a si jéego yi nga xam moom la ñuy tekk yéene kaay gi di wal fa nee na neexul ba neexul waaye Sénégal nag deltu na ginnaaw ci lu jëm ci wàllum démocratie ndax ñi nga xam ne ñooy opposants yi ñoo ngi leen di jàpp di leen di dugal ci kasu bi ba pare sunu bëggee nag manifester ñu ne leen du ngeen ko fi defee yéene kaay gi di ci réew mi dañoo nemmeeku ne président ci bopp jamono ci moo koy doxal nu ko neexee te nag li jëm ci wàllum liberté yi dañu koo daal di confisqué recul démocratique bu garaaw moo am ci Sénégal yéen kaay gii di Vox Populi ministère bi ñu denk wàllum yoon ci réew mi ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax song yi nga xam ne moom lañ leen di song ñoom nag nee nañu nekk ñu fi di neexal wala nag ñu bëgg a teg nit fitna ñoom daal seen doxina mooy jël loi teg ko ci kanam ndax nee nañu loi nag lu impersonnel la ba pare général yéen kaay gii du l'Observateur ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar Dakar ñoom nag nee nañu dafa am ñoo xam ne ay samba boy lañu ñoo bëgg a jóg andi kaawa ci réew mi kaay gi nee na fukk ak ñoo xam ne njort nañu ne ci force spéciale la ñu bokk am nañu retour de parquet yéen kaay gi de Le Quotidien nee nañu violation des droits de l'homme maanaam ak ak yelleefu askan wi nga xam ne ñoo ngi koy saax-saaxee ci Sénégal opposition bi nga xam ne ñoo ngi leen di teg loxo di leen di dugal ci kasu bi ak ñi nga xam ne ñooy faatu ci manifestation yi loole nag tax na coalition Yewwi Askan Wi daal di nag saisir au commissariat des Nations Unies gi de Le Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi dem nañu sa ONU di fa vilipender Macky Sall maanaam di fa jéebaane Macky Sall yéen kaay gi di Vox Populi nee na coalition ñu sa nag ñi nga xam ne ñuy waa ONU danañu saisir CEDEAO waaye nag bu ñu saisiré CEDEAO ba pare danañu saisir nag Union africaine Union africaine bi nga xam ne Macky Sall moo ko jiite waa Yewwi Askan Wi danañu ko saisir Macky Sall loolee moom nan lay def ak moom yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar nañu nag procès Ahmed Aïdara démb la woon waaye nag dañu koo mujj dàqane ba altine ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin yéene kaay gii de l'info si boppam moo bëgg a yeexal atte ngir jël ay Aïdara denc ko si kasu bi avocat yi ay Aïdara ñoo ko xamle Birahim Seck bu forum civil ne nee na nag waxuma la lu ñaaw li nga xam ne def nañu ko Ahmed Aïdara di dàq ay procès waaye jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko Ahmed Aïdara dugal ko ci kasu bi loolee tegewul fenn du dëgg du yoon maanaam tegewul fenn kàddu Birahim Seck la te nee na nag Ahmed Aïdara a am fulaak fayda daal di porte plainte ndax dañu koo tooñ kaay gi di source ñu koy fekk fa Matar Ba ministre bi ñu dénk wàllum sport ci réew mi nee na politique politicienne bi am ci Sénégal loolee mënuñoo jëmee fenna te nag confrontation jàppante yi nga xam ne jamono ci moo am ci réew mi ministre Matar Ba nee na mënuñoo jëmale fenn wax ju ñaaw jee xaste yi ak saaga yi loolee tamit mënuñoo jëmale fenn te nag amul benn sens te loolee nag dañu ko war a bàyyi yéen kaay gi dalee si ko xëy dañu xibaar naan ñu Idrissa Goudiaby mi nga xam ne ajjuma jële jële jële génn mooy ki faatu woon ca diiwaanu Casamance autopsie bi nag li mu wane woon mooy balu fetal rëyu ko loole nag ak njabootam ñoom dañu ko lànk ba tëdd sa naaj waa procureur nee ma parquet bi da leen a woo ne leen ñëw leen jël ci seenub néew waaye nag mbokki Idrissa Goudiaby dañ koo wax na ko nag na koor bi mat sëkk na koor bi mat sëkk maanaam yaram wi bu si dara des na complet bu ko defee ñu daal di koy jox nag avec expert mu daal di ñuy defal beneenub autopsie ndax lii nga xamante ni moom ngeen wax ne balu fetal rëyu ko ñun ko muñu loolu yéen kaay gii de la quotidien nee na ñi nga xamante ni ñoo liggéeyal Sénégal liggéeyal Sénégal ba dem retraite ñoom jamono ji li ñu leen di fay seen pension bi dafa tuuti ba maara taale moo tax ñoom nee ñu talaata ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la danañu wàcc si mbedd mi mooy retraité yi retraité yi nga xamante ne lu ne def nañ ko si réew mi seen pension bi moo tuuti ñoom nee nañu danañu marche talaata ji ñu dëg ma la yéene kaay gi di record xëy naan ñu waa nag Sadio moom ban poste nag la ko Bayern ni teg ban poste la Sadio Mané football fi nga xam ne mooy Bayern loolee ab la journal bi na Bayern nag est-ce que mënu ñoo jël Sadio Mané mu football ailier ñii ne est-ce que Sadio Mané mënuñu koo